te loolu boo borom mantiq doo ko firi mukk dëkk bu nga xam ni góor ña ca ne dañuy takk seen yaay di sëy ak moom sëyu bànneex yonent bi ni moom la yàlla gën a man toléré dëkk bu nga xam ne ña dañuy ruur toolu gor seetal loolu waaye boo ko tegee ci mantiq rek gis li yonent bi wax ndax nit ki tëdd ndeyam te tëraayu bànneex dafa am régal d'hygiène rek bu mu respecté wul waaw dafa am règle d'hygiène bu mu respectéwul bu mu ormalul waaw règle à la fois morale s'il le faut on peut dire bu physique ñaar yëpp am na ci la dañu ragal deret ja dara topp ko wala dañuy ragal mu xëy ñàkk kersa te ko garaaw na mais am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw moom la yonent bi tudd foofu mooy nit kuy ruur toolu liberté loolu boo ko bëggee firi ci mantan dangay dendale alal yi alal yi danga leen di hiérarchiser mais alal yépp dañu am sang seen sang mooy liberté te yi ci des yépp boo ci def usure te mooy riba boo ci def riba dañuy seet naka la valeuru alal ja toll noonu lañuy ñuy jàppe bi mais ki nga xam ni dafay tëdd ndeyam tëraay bànneex dafa am règle d'hygiène rek bu mu ormaalul te kooku bàkkaar bi ci boppam lay yem mais ki nga xam ni dafa yàlla daf ko xool mu dend ak nawleem yàlla may ko ci alal lu mu mayul nawle bi mi ngi dend ak nawleem yàlla may ko wéru yaram bu mu mayul nawle bi mi ngi dend ak nawleem yàlla may ko baat ci pinc mi bu mu mayul nawle bi <coughs> te yàlla moom mu wóor ko ni kii gënul nawle bi te mu xañ ko ñett yi may ko kii kooku dëgg ci loolu xëy benn bés rekk sol baxam jabar ji indi cuuraay suur ko mu ndékki ndékkeem walla bu dee sol costume ñu indil ko cravate jox ko haute cologne bu légère mu jékki-jékki xàqataay mook jabar ji rekk ni ko e gis nga diw tudd nit mara day tànn bu ko defee ñu joxe instruction ni yiw wuñ ko mas dencal ci kaw asamaan nañ